naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk ah, un deux trois mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaar kii ma taxawal nag defe naa ne fan yi gis ko moo gën a jafe sax gis président Macky Sall muy Mama Lamine man nga koo woo ngeen wax téléphone waaye gis ko ba waxloo ko moo jafe yàlla nag moo dogal ma dugg biir jàmm gën fekk ko ci koñu tarkindaa yi a ci loo ne. sant yàlla rek maam a am nga jàmm. am naa jàmm baax. maama lu tax nga raar loolu laa lay njëkk a laaj ginnaaw bu ma la baloo ak si jullu tabaski bi ñu jógee. baal naa la ak di baalu ñëpp ak di wax onze billah bismillah nowel yàlla jërëjëf Serigne Touba ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci ñun bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu Abdourahmane yàlla na ko fi yàlla bàyyi bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal Baye Sidi Mbacke alxuraan borom jàmmagan borom Sika Mbaaw di nuyu suñu Abdou Karim Mbacke borom makaarimul axlaa di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp waaw di baalu ñëpp àq si julli bi tabaski bi waaw di baalu ñëpp di ñaan yàlla fi Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. lu tax nga raar. waaw dara nekkoon ci blessure doon faju rek loolu tax la moo tax gaa yi gis ñu ma woon. léegi blessure bi macha allah na mbaa. macha léegi tane na mu baax. yaa ngi entraîné normal. commencé na entraînement di waajal le 21 août. di waajal le 21 incha ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si jàmm. Mhm. combat bi sa euh, maanaam journée bi passé nga waroon ko bëre ak euh, Garga ñu dem ba dernier moment bañ na suba la xaw ma ginnaaw suba la ñu ne maam Mama lamin dafa blessé coow li bëri Sénégal combat bi coow li mu am ak sa blessure boobu coow li mu jur yow yëg nga coow li ak bi nga ko yëgee noo ko dundee. waaw sant yàlla rek jël lépp delloo ko suñu borom te xam ne jaam moom. fi fi muy dem rek la xam waaye xamul fu mu jëm waaw te wax mu yegg kenn matalu ko suñu borom ko man waaw mun nag ay jaam lañ nekkoon ci làmb ji doon sabablu waaw doon waajal bis boo xamante dañ ko waroon jëflanteeg ak Garga waaw yàlla li la ci namu ñu dem ba beneen moment ma ma am blessure après ñu waaw ma toog gérer te xam ni loolu la suñu borom dogal te xam ne man wax dëgg yàlla mënu ma préparer combat pat pendant ay at waaw benn heure bu ndaw rek mu bëgg ma ko neexu ma neexul kenn. neexul kenn mais bon yàlla kenn du xëccoog moom quoi ñett nga yóotu dara fekk lu mu yóotu gën si moom nañ delloo si xel yi nañ delloo si xel bu baax man mënoon naa ñëw xëy ñu ne Mama Lamine décédé na wala Mama Lamine dee na waaw kon ay tànk yi nii ça n'a rien à voir la rek pour man. Mhm. am na ñoo xam ne nag loolu moom ñuy dund làmb am na ci ñu ko wax ñen ñi dañ ne Mama Lamine daa blessé dëgg la am ñoo xam ne dañ ne. dafa parewul physiquement parewul mentalement parewul mystiquement parewul moo tax mu jaar mu seet fu mu jaar wax jooju noo koy noo koy tontoo. waaw xam nga man moom wax dëgg yàlla taamu ma comme nit lu mu wax rek ma tontoo waaw man li ma dal ñi ma dëkkal xam nañ ko ñi ma nekkal xam nañ ko keneen ko gëmul tamit amul problème <laughs> voilà man dama gaañu woon dama gaañu fi combat bi tolloon wala fi combat bi yegg loolu moom concernant man ce qui me concerne mooy dama waroon bëri ak moom xëy lii la yàlla dogal maa ngi sant yàlla di waajalaan le 21 mars le 21 août incha allahu rabbi la boo xam ne ñëpp dañ ne mbër yi nga mës a bëree yëpp mësoo am adversaire bu mel ni gar ci technicité mën a bëre allah nekk tamit sportif boo xam ne bu maanaam bu sen la maanaam boo xam ne daal maanaam sportif vrai sportif la loolu euh, noo ko gisee. non loolu moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam ko ndaanaan la sportif la lépp la dajal na lépp voilà mais nag ndaanaan boo gis ndaanaan lay dajal li ma ko waxoon tegguma ci sama tànk wallaahi waaw yàlla nag moom moom dogal moo xool li ko neex mu dogal. loo ko waxoon. man dellu si. non loolu yëpp ay ay détails la comprendre nga. maa ngi ñaan yàlla ñëpp ñaanal ma moo wér am tan am kattan waaw ba le 21 août incha rabbi mais le 21 août li ci des bareetul de. kenn waxatul loolu. mbaa xam nga mbaa xam ne un matalu sax un mois. non xam nañ ni le 21 août dinañ bëre incha allah. Mhm. te parcelle géej géejawaay ak ak sax fur la parcelle ak jàmm gën ren jokkalante bi daa metti de. non avocat à la pour la buur ak doomu buur rek ñu jàppee ñu mburu ji fóor dañ leen koy def rek amul benn problème mu jeex marché bi tas ku ne dem sa yoon. lii nga gis. looloo am de leneen loo gis wax ma. man kay yow laay laaj. <laughs> yow laay laaj kay. sa soppe yi loo leen di wax. waaw dara di leen wax nañ waajal le 21 waaw ak Vox Arena Equivox nuy El Hadj sama caméraman bi ak Babacar nuy Seck DG DG bu DG boobu moo loolu de. waaye sama DG bu ko waxati. moo loolu de sa waay la de. waaw la sa doomu ndey la. non doomu ndey la mais day nelaw quoi. Ah, noon nelaw des fois nag nelaw mën ta ñàkk si àddina àddina bu lépp complet du baax. waaw loolu dëgg la moom nelaw mën ta ñàkk faw nga nelaw yeewu. Ah. sangu xoolaat xam fi ngay aw. na bàyyi nelaw bi nag te yeewu waaw ah, mu yeewu. <laughs> yow mi est-ce ci nelaw nii. waaw dama doon nelaw léegi laay soog a ñëw dama war a ñëw signature bi. waaw si euh, open press bi. waaw Siteu day bëreeg Papa Sow. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy. yéene nañ ko àdduna ñëpp ko yéene. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy bu ko jég. barke maam Serigne Fall. coow li topp lam ji fan yi dem demb ab journée war a am ñaari journée ñu xëy xëy na annulé nañ journée yi ndax défaut de sécurité loolu noo ko gisee. waaw benn. bi ma ci njëkk a wax mooy làmb chaque jour ma ne gars yi fonk ñu leen respecté wu leen teguñu leen fenn mais boo ko waxee sa am na ñoo xam dañ ciy gis seen bopp Babacar man làmb laa yaakaar Coly Faye mii taxaw làmb la yaakaar keneen na keneen làmb la yaakaar te nit ku nekk dafa am loo xam dañ la koy jox muy cër te cër bu amul sa diggante ak nit rek kooku da nekkatul nit comprendre mënul nekk nga préparer sa làmb ba mu des ay secondes ñu ne. yàq nañ ko si lan problème mu sécurité loolu nañ xoolaat loolu ban genre kii la quoi wax dëgg yàlla parce que métti na trop waa ñi ñu ko def dañ koy xoolee comme ni ci suñu bopp comprendre nga yee nag gars yi jàpp ci affaire yi te bàyyi ñuy def comprendre nga li ci gars yi wax muy mesure barrière rek yooyu yooyu gars yi jël ko ta bàyyi ñu yeggale suñu làmb ñun ay ay lutteur lañ yaa ngi léegi bokk ci làmb bëgg làmb di ko dund kon ak lu mënti xew buñ ñu ci dimbaliwul ngir yàlla nañu ko bàyyil yaa ngi dégg buñ ko yàq parce que sport la boo xamante ni tey booy jeunes yu bëri bàyyi nañ lépp ndax làmb nekk ay mbër booy boo ci gis muy def làmb rek mu am premier combat day def open press ko ñoom ñëpp génn di savourer di dundalaat ko ñoom loolu mbégte la boo xamante ni ba kenn xamul fu muy yem kon tey ak lu mënti xew rek gars yi waruñu waru ñu dégg wax yooyu ñun dañ ñu war a taxaw fi ñu war a taxawee jàppale ñu te bàyyi ñuy dund làmb ki ko bëgg du ko toroxal ñi ko bëggu rek ñoo koy toroxal te ñi nga xamante ni war na noo wax nañ wax ñi warul wax nañ tëj seen gémmiñ ñi war ñan ñoo war a wax ñi war a wax xam nañ ne ñu warul wax xam nañ leen. am na ñuy wax ne état bi daa contrôle làmb am na ñu koy wax. man mii dama koy wax waaw amul naka sa xanda foo ko teg waaw parce que bëgg ko wane wu Macky Sall ba nga dalee gis Macky ñëw stade di seetaan làmb. waaw mais loolu que tekki na ne daa bëggul làmb. moo bëggu ko. Abdoulaye dëkk Fatick. Abdoulaye Wade mu ngi fi ñëw na ba dugg fi seetaan làmb def fi lu ne Abdoulaye Wade am na fi bis bu ne ñun sport lañ bëgg mooy sunu multi mooy sunu métier ñun gëmuñu politique gëmuñu dara Serigne Touba ñu yaakaar làmb mooy sunu métier te sunu yaay ñoo tax ñu dugg ci làmb buñ demee nag ba muy mën a demee nii nii nii gaañ ku nekk da ngay xool foo jëm.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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk